nauzu billah bismillah inna waliyi allah bëggoon waxtaan ci xasaayit bi sëriñ bi tuddee tazawudu sixaari yóbbul ndaw ñi ilal jinaani jëmale ci àjjana illaahi yàlla zil anhaari di borom dégg ehm, xasida gi tàmbalee en dana muslu billahi ci yàlla mina seytaane ji seytaan rajim kadi ñu rëbb kadi kañu jam kañu dàq way niyat naka man mooy soxaadana moslu bi ka ci moom yàlla wa zuriyata ci ay sëtam mina seytaani ci seytaane arajim kadi kañu jam rabbi saa borom a onze dana moslu bi ka ci yow min hamazaati shayaatini ci jax-jaxi seytaane wala ci pexeb seytaane a onze dana moslu bi ka ci yow rabbi saa borom an yax dulin ba bu ma teewee nga xam ne nit ki moom buy faatu iblis day teew pour mu weddi yàlla rek ndax mar gi muy mar a tax weddi yàlla ma jox la ndox mi nga naan waaye yëpp ay illusion la dalay nax rek boo ko weddee rek boo dee ci kéefër ku dee ci kéefër moom ñëpp xam nañ fu mu jëm hmm. bismillah yi ci tudd turu yàlla laay tàmbalee li may wax li may def ab jullit lépp lu muy def dafa war a tàmbale ci bismillah arrahman mooy nga xam ne mooy yërëm ñëpp seetal ki ko gëm ki ko weddi ki ko topp ki ko toppul arahim mooy yërëm ku ko soob moom bis penc wasalla yàlla na doole xewal moom yàlla allaahu yàlla taalaa kawe na ala sunub sang wa mawlaana ki nga xam ne mooy sunu kilifa muhammadin muhammad la tudd le bien-aimé ou bien voilà le bien-aimé le ali yàlla nekk tamit ci waa këram wa sax bi ak i saxaabaam ña ànd ak moom wasallama yàlla leen yàlla musal wa barakate mu barkeel leen salaatan ak i xewal wa salaaman ak i musal wa barakatan ak i barke yaxuudu dana wommat bi xaa ci moom téere bi kulla man képp koo xam ne xaraa jàng nga ko xaasal kitaab bi le téere dana la jame ilal jannati yóbbu la ca àjjana ëllëti ja nga xam ne waxida dëgmal nañ ko wala dencal nañ ko al muttaxuun way ragal yàlla yi amin yàlla nga nangu ñaan yaa rabbal alamin yow mi borom mi ndeefi yaqulu dana wax man ka nga xam ne lay sa yasaalu déet muy deñ yax yaxmadu di sant maalikahu borom bi al abdu ab jaam la alxadim maay liggéeykatu yonent bi ahmadu mooy sama tur alxamdu xaaju cant ñeent xaaju cant ñeent mooy sant gi yàllay sant boppam sant gi yàlla di sant jaamam sant gi jaam bi di sant yàlla ci li mu ko defal ak sant gi jaam gi di sant moroomu jaamam waaye dañ ko lim ci ñeent rek waaye ëpp na ko lillaay ñeel na yàlla allazi janga xam ne axsana rafetal na lii ñeel ma man sëriñ bi ixsaana man rafetalu ka nga xam ne lay sa yezaalu du deñ muxsina di aji rafetal ahmadoo danaa ko sant wa jaara ndax tabel na ma ndax may na ma xamal na ma bi tawxiid ci xam-xamu tawxiid wa axawayhi ak ñaari mbokkam yi muy fiq ak tasawuf sunnatil waqiidi ak sunnas ki ñu wéetal gi di seydina muhammad sallallahu alayhi wa su ma topp salaatu xéwal wasalaam ak mucc sarmada faw yàlla na nekk ala xalilihi ci xaritam ba alxabibi kay soppeem ga ahmada di yonent bi sallallahu alayhi waala ali ak waa këram ma siabin muminin ànd ak i saabam al muminin ak way gëm yi al muslimin ak way jébbalu al kuramaay way tedd al muxsinin ak way rafetal yi xaasaa yëgal waza niki li nasamtuhoo way naa ko mu xaddama mu doon lu nu jiital urjuzatan di ab rajas naa fi atan buy jëriñe mu karama di terale samay tawoo tuddee naa ko tazawudu sixaari yóbbalu ndaw ñi ilal jinaani lay jëmale ci ajana yaay si an xaar ya di borom yi mu ne wallaaw yàlla rabbi saabaram asalulaay ñaanal xabulaa nangu wala am naa kóolute wasawaa ak seel wa tab ji akum màgg wa kawnu xaasal nas bi nekk bi way aussi nekk nekku bilee way tamit xaa dan dana wommate ilal sabini jëmale ci yoonam ku jub al axfe mi kay aji jub kulla man képp koo xam ne bëgg nga kawe képp ko xam ne topp nga ko wala tegu nga ca yoon ba wa kaw noo nekk na tamit njëriñu téere bi saadatu sibyaan waa ah, mu nekk texem ndaw ñi wal siibi ak borom bi jaani wa subaani ak waxambaane wa niswaani ak jigéen ñi xaasaa yëgal awaanu leen siraat sama soppeeku leen maraam jëm ci sàkku teef wa wajhu rabbi te jëmmi saa borom xaraat yi mooy sama xemam teef bi leen siraam ci lu dul dog waaw nii mooy kii bi partie bu njëkk bi incha allah nañ ñëwaat ci deuxième partie bi incha allah